bon tey ñu ngi fii ci Ngayokhème di dajeek jigéen ji 567 jigéen lañ fi dajeel yoo xam ne ci 50 groupement la ñu nekk 567 jigéen ñooñu dañuy recevoir 43 millions 500 yoo xam ne yi euh, mutuelle euh, INSEPS moo leen euh, financé ñu ciy am mbégte nag. tey bi nga ñëw bu ma ñëwee fii. vraiment ah, li El Mansour non wax suma yaram daw na 567 femmes nek à la commune hein amo sax fo meuna a jaar ñu nar leena financer, ku ci nak ñu jox la as tuut nga dem quoi que li nek na lo xamne li war nañ ko meuna a ajouter ci plus bi nga xamne bi commune bi mu ngi ko def parce que au delà de ñi wa DER recevoir nañ jigen ñi bokk won ci DER projet DER yi recevoir nañ am nañ benn projet structurant de 23 millions yo xamne nous dans le cadre de la commune d'air financier. Ce pour vraiment ñi am ci surtout la pour jëm kanam que nous ah, mais comme si morom yi nga des commerçants yi euh, euh, Sénégal en tout cas nous ngi leen di gërëm di mobilisation mais c'est un engagement

te amuñ dara lu luñu jàpp depuis bu ñu commencé nag di am ay financement dix mois bii ñoom Mbagnick Ndiaye indil suñu monsieur le maire ñu ngi ko siy gërëm bu baax a baax ndax xam naa ne di mois boo ci yoree fukki junni ak juróom di si liggéey xanaa booy jaay caaf sax di nga ko mën a génne. di wax jigéen ñi tamit xaalis bi nekkul jël ko tëdd di nelaw pour liggéey la. comme pour liggéey nii nag ministre dafa ñëw pour jàppale ñu pour ñu liggéey pour suqaliku ku ko jël na nga takk sa ndigg gën a takk sa ndigg parce que man jigéenu ngay xem am naa nag mbégte si ñoom parce que nekkuñu ñuy yàq te ay liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu.